الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu ñépp ñi ngi xam ne ñi ngi yeewoo fii ci sunu dëkk bi di Sénégal di leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall di ñaan yàlla sunu boroom kàddu yi nga xam ne ñi ngi ko fi wax yàlla na doon kàddu yoo xam ne dana doon yokkute ci képp koo xam ne jëmm joo xam ne mi ngi koy déglu di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na ñu yiir ak xel mu sell mi ñun ñiy wax ak yéen ñiy déglu ubbi sunuy xol ba nga xam ne kàddu yi danañ ko jariñoo ndaxte kàddu la yoo xam ne dañ ko tibbee ci téere bu sell bi ñu yàlla sunu boroom jox muy biibal bi kon mbokk yi ñuy déglu dañuy delluwaat ci téere bu sell bi ci biibal bi xool li nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom wax jàng ko jàng li nga xam ne moom lañu seydina isa almasi bi yeesu kirist wax jàngal ñu dañuy jàng ci kóllëre gu bees gi jàng ci injiil jàng ci aaya fukk ak juróom ñaar tàmbalee ko ci saar ñaar fukk ak juróom benn ba fanweer ak juróom ñaar lii la yàlla sunu boroom wax lii la sang bu tedd bi di seydina isa almasi bi yeesu kirist wax day wax ne la xewoon ci bésu nooyin dina xewaat ci bésu doomu nit ki nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jël jabar ak a sëy ba bés ba nooyin duggee ci gaal ga noonu mbënd ma ñëw rey leen ñoom ñépp dina mel itam la xewoon ca bésu luut nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jënd ak di jaay di ji ak di tabax waaye bés ba lóot génnee sodom yàlla tawlu safara ak tamarax rey leen ñoom ñépp noonu lay mel bés bu doomu nit ki feeñee ca bés boobu ku nekk ci kaw kër ga te ay bagaasam nekk ci biir bu mu wàcc jëli leen te it ku nekk ca tool ya bu mu ñibbi fàttaliku leen jabaru lóot kuy wuta rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ko ñàkk dinga dund maa ngi leen koy wax ca jamono jooju ñaar dinañu bokk tëdd guddi dees nañu yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des ñaari jigéen danañu walandoo dees nañu yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des taalibe yi ne ko yeesu fu loolu di xewee borom bi yeesu tontu leen ne fa medd ba nekk fa la tan yi di daje mbokki auditeurs yi lii yàlla sunu boroom wax ñu sang bu tedd bi seydina isa almasi bi yeesu kirist wax ñu te mu jëm ci mujjug jamono mujjug jamono yooyu nag mu méngale ko ak li xewoon ci jamonoy yonent yàlla nooyin ak la xawoon ca jamonoy luut luut nag ñi ko xamul moom moo doon jabaru sunu maam eh, jarbaatu sunu maam ibrahima ba ko yàlla sunu borom ne na nga gàddaay yow ibrahima génn fa nga nekk dem ci bërëb ba ma lay won bu mu jëlee soxnaam saara dafa jëlaale jarbaatam jooju doon luut seydina isa almasi bi yeesu kirist nag méngale mujjug jamono ak jamono ji nga xam ne moo doon jamono yonent yàlla noohin ak luut mi nga xam ne moom moo doon jarbaatu ibrahima wante li indi wax bi dañuy gis ci injil ne ay pharisien ñoo ko mës a laaj benn laaj bu ñu xoolee ci luk ci aaya fukk ak juróom ñaar saar ñaar fukk pharisien yi mooy ñooñu nga xam ne dañu bokkoon ci askanu yahud yi wante nag am seen tarixa bopp nekkoon nag ñu bari woon xam-xam ci lu jëm ci tawreet ñoo ñëwoon wax ak moom laaj ko yàlla sunu borom ci téere bu sell bi dañuy indi laaj boobu nga xam ne moom la pharisien gi laajoon sang bu tedd bi di seydina isa almasi bi yeesu kirist ci injil ci xaaj bi ñu jaglee luk ci aaya fukk ak juróom ñaar saar ñaar fukk pharisien ya laaj yeesu ne ko kañ la yàlla di tëral nguuram waaw kañ la yàlla di tëral nguuram dañ ko laaj laaj bu am solo laaj bi mooy ban bés la yàlla di feeñal ne moom kese moo nekk moom rek moo nekk te li mu dogal rek mooy am ndaxte am na bés boo xam ne buñ fa yeggee bépp mbindeef da nga yëg ne kat ci dëgg-dëgg kenn amul kenn nekkul kenn saxul lu dul yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu sàkk te ñuy ay jaamam nit day naagu te dañu toll ci jamono yoo xam ne bu ñu xoolee jamono yi ñu nekk méngale ko ak jamono luut méngale ko ak jamono nooyin te danañ ci dellu siwaat ci kanam tuuti dañuy gis ne doomu aadama day naagu am na foo xam ne bu fa tolloo day yaakaar ne dara tëwu ko te sunu jamono ji ñu toll ak jamono yi nekk sunu kanam loolu dana gën a fés tey jii bu ñu xoolee li nasaraan di wax naan progrès scientifique maanaam jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci mbirum science bu ñu xoolee xam-xam fi mu toll bu ñu xoolee tey jii doomu aadama li mu mën a def bu ñu xoolee dëkk yi ñuy tabax ak yu mel noonu yu ñuy def yu doy waar dañuy dem ba nga xam ne dañuy naagu yaakaar ne dara dara tëwatuñu mën nañu lépp te sunu bopp rek lañu nekkal pharisiens yi nag ñi nga xam ne ay xa- boroom xam-xam lañu woon yahud yooyu te yàlla mayoon leen lu bari ñoom kat Musaa jàngaloon na leen ne dana am bés boo xam ne yàlla dana wone boppam ñoom nag ñu tuddee ko bésu nguuru yàlla aji sax ji ñu laaj sang bu tedd bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ndaxte xamoon nañ ne itam ne moom kat jëmm ju sell jooju yàlla sunu boroom mayoon na ko lu bari amoon na xam-xam bu bari kéemaan yu bari mu ko doon def ñu ñëw ci moom laaj ko ne ko kañ la yàlla di teral nguuram mu tontu leen waxtaan ak ay taalibeem yee leen ci jamono yooyu nga xam ne buñ ko gisee rek war nañu xam ne nguurug yàlla soreegul nguurug yàlla jamono ji nga xam ne yàlla dana wone boppam dana won mbindeef yi mu sàkk ne leen kat yéen maa leen sàkk maa yore seen ruu maa yore seen dund lu ma neex ma def ci bis bi nga xam ne yàlla ci boppam dana bàkku bis bi nga xam ne amul kenn ku mën a taxaw ci kanamam kat ne man am naa martaba mën naa def naa liggéey naa ba mën a teg sa bopp foo xam ne da nga diir mbagg ki nga xam ne moo la sàkk te jaamam nga mu yàlla sunu borom bés boobu nag mooy bësub nguurug yàlla seydina isa almasi bi yeesu kirist tontu ci jàngal ñu ci lu bari kon ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaari xaaj bi gën a jox ci waxtaanu tey wi
أدخل ديارك بالتهليل لك سيد الجليل نترنم بصوت نشيد لك يا ربنا المجيد نترنم بصوت نشيد لك يا ربنا المجيد فنسمع صوتك فنرى قوتك واجعلها بيتك
kon mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng ci injil ci xaaj bi ñu jagleel luk ci aaya fukk ak juróom ñaar saar ñaar fukk ak juróom benn ba fanweer ak juróom ñaar sang bu tedd bi seydina isa almasi bi yeesu kirist tontu pharisien yi jaar fa jàngal ay taalibeem ci li jëm ci nguurug yàlla sunu boroom jëm ci bés bi nga xam ne moom dana dellu siwaat ci biir àdduna ndaxte bés boobu nga xam ne yàlla dana wone boppam dafay bokk ak bés bi nga xam ne ci la sang bu tedd bi di dellu siwaat àdduna te nee na bés boobu bu waajee di ñëw dana mel ne jamono yu nooyin dana mel ne jamono yu luut moo tax mu wax ci saar ñaar fukk ak juróom benn ne la xewoon ca bésu nooyin dana xewaat ci bésu doomu nit ki maanaam moom nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jël jabar ak sëyi ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga noonu mbënd ma ñëw rey leen ñoom ñépp lan moo xewoon ci jamonoy nooyin ba yàlla sunu boroom delloowaat xel yi ci jamono yooyu lan moo xewoon ci jamonoy nooyin ba seydina isaa almasi bi yeesu kirist di ñu yee ne ñu bàyyi leen xel ci bésub jamonoy nooyin am na lu fa xewoon am na jàngat yoo xam ne mën nañ ko jàng ci jamonoy yonent yàlla nooyin ngir nag ñu xam lu xewoon ci jamonoy nooyin fokk ñu dellu ci kóllëre gu ñàgg yàgg ga ancien testament jàng ci xaaj bi ñu dippee njalbeen ga genèse jàng ci saar aaya juróom benn ci saar ñett saar juróom ba ci saar juróom ñett lii la yàlla sunu boroom wax ci téereem bu sell bi wax ko ci jamonoy nooyin mi ngi wax ci naan manuma bàyyi nit muy wéye dundam gi ma ko may ndax nit du dara lu dul suuxi neen kon dinaa lem appam ci diirub téeméeri at ak ñaar fukk yàlla sunu borom lii la wax ci jamonoy nooyin dafa wax ne du bàyyi doomu aadama muy dund nu mu ko neexee mu ne dana am app goo xam ne boo fa tolloo doomu aadama mbindeef yi mu sàkk dana jël dund googu mu leen joxoon dana jëlaat seen ruu mu ne ci téeméeri at ak ñaar fukk falay yemale seen dund bu ñu xoolee ci sunu jamonoy maam aadama ba jamonoy nooyin nit ñi daan nañ dund dund goo xam ne foo ko takk weesu na ko nit daan na macha allah am at yu bari yu bari yu bari yu bari yàlla sunu borom mayoon loolu doomu aadama wante ñu gis ne ci jamonoy nooyin yàlla sunu borom xool mbindeef yi mu bind xool doomu aadama yi mu bind te ñuy ay jaamam mu ne kat ah ñii de dootuma leen bàyyi ñuy dund nu mu leen neexee danaa am fu may àppal seeni at fu ma koy yemale mu yokk ci ne ci saar juróom ci njalbeen nga aayu juróom benn ne aji sax ji dafa gis ne mbonu nit màgg na lool ci biir àddina te fu mu mën a toll lu bon rek lay xent ci xolam noonu aji sax ji am tiis ci xolam ba mititlu li mu doon sàkk nit ci kaw suuf aji sax ji daldi wax ne dinaa far ci kaw suuf doomu aadama yi ma sàkk nit ak jur luy raam ak luy naaw ndax mititlu naa lu ma leen doon sàkkee mu yokk ci ne ca saar juróom-ñett waaye fekk na aji sax ji xool nooyin bëtu yërmande yàlla sunu borom lii la wax dafa saytu àdduna saytu doomu aadama gis ne kat lu bon bari na bari na ci jamonoy nooyin bari na ci biir àdduna bari na ba nga xam ne sax ñi ngi naan yàlla sunu borom mi ngi wax naan métut la na mbir mi métut la na mbir mi métit lu na ni nga xamee ne noonu la doomu aadama yi doon dundee ci jamonoy yonent yàlla nooyin nee na doomu aadama su yeewoo xolam du xent dara du jublu ci dara lu dul def lu bon doomu aadama lu bon rek lay xalaat te xam ngeen ne buñ nee doomu aadamaa ngi xalaat lu bon loolu mooy tekki na kon dummóoyu na yàlla kon jamono yooyu doomu aadamaa ngi doon dummóoyu yàlla mba mbir mi jéggi dayoo yàlla sunu borom ne ah man de saytu naa àdduna saytu naa doomu aadama gis naa ci dëgg-dëgg ne dummóoyu nañ ma yàlla sunu borom ne bi njëkk danaa gàttal seen fan ñaareel bi mooy danaa far lépp luy dund ci biir àdduna yemul sax ci doomu aadama yi mu bind ñun dafa dem ba mbir mi law balaa lépp loo xam ne mi ngi ci àdduna muy luy naaw muy luy raam muy luy dox yàlla sunu borom ne loolu lépp lépp lépp danaa la ko far ci kaw suuf doomu aadama yi jamonoy nooyin demoon ba nga xam ne dummóoyu nañu yàlla sunu borom waaw ndax dañuy wax ne wala boog ñu jàpp ne loolu kat jamonoy nooyin la woon du sunu jamono ndax dañuy xalaat ne bi yàlla saytoo jamonoy nooyin bu saytoo sunuy jamono la muy wax du bokk ak la mu waxoon jamonoy nooyin ma ne aha kay ndaxte nañu xool tey jii lan moo xew ci biir àdduna nañu ku nekk na xool boppam ku nekk na xool gox bi nga nekk ku nekk na xool dëkk bi nga nekk ku nekk na xool say mbokk ku nekk na xool askan bi nga nekk muy fii ci Sénégal muy ci dëkk beneen dëkk bu mu mënta doon nag ci biir àdduna nañu xool naka la doomu aadama di doxalee mu am ñu weddi yàlla ne yàlla amul mu am ñu gëm ne yàlla am na wante jëf yi mooy won ca dëgg-dëgg ndax gëm nañu wala gëmuñu donte am na ñoo xam ne tey jii ñi ngi wax ne kat yàlla am na gëm nañu yàlla ñi ngi nekkal yàlla wante bu ñu xoolee jëfu doomu aadama ci kaw suuf jamono yi ñu toll ak jamono yi nekk ci sunu kanam dañuy gis ne saa su nekk ñi ngi gën a dummóoyu yàlla ñi ngi dummóoyu yàlla ànd ceeg naagu naagu gu rëy da ngay déglu nit ñi ñuy wax naan fii ak ñaar téeméeri at fii ak junni at fii ak ñaari junni at danañ def lii danañ def lii danañ def lële wante nga xool tey jii li nga xam ne mooy ni ñuy doxalee li ñuy xalaat li ñuy wax sunuy jëf lépp lépp lépp mi ngi wane na ca dëgg-dëgg dummóoyu nañu yàlla sunu boroom dummóoyu nañu yàlla sunu boroom yi nga xam ne ñi ngi koy nangu ci biir àdduna yi nga xam ne ñi ngi koy wax ci biir àdduna yi nga xam ne ñi ngi koy jëfee ci biir àdduna muy man miy wax ak yéen muy képp ku may déglu muy fépp ci biir àdduna tey jii bu ñu saytoo sunu bopp bu ñu saytoo sunuy askan ca dëgg-dëgg dañu war a nangu nekkat ñi ngi dummóoyu yàlla ci fànn yépp nag ñi nga xam ne ñeneen gëmuñu yàlla ak ñi nga xam ne neneen gëm nañu yàlla sunuy jëfkat dëppoowul ak jëfu askan wala boog nit ñi nga xam ne gëm nañu yàlla loolu lu nekk la loolu lu am la saa yoo jàppee nit ne kat kii nitub yàlla la saa yoo jàppee ni mbindeef mii kat jëmm ji kat gëm na boo demee ba ci biir nga gis mu wax wala mu def loo xam ne ca dëgg-dëgg loolu dëppoowul ak ki nga xam ne gëm na yàlla ki nga xam ne ragal na yàlla ki nga xam ne mi ngi teg tànkam fi yàlla sunu borom wax loolu am na mi ngi ci biir àdduna ak fu mu mënta doon nag kon li xewoon jamono yi nooyin mi ngi sunuy jamono bu ma doon lim kon duñ fi jóge tey wante damay tënk wax bi rek ne li xewoon ci jamono yu nooyin ba yàlla saytoo askanu nooyin nekkat nit doomu aadama li muy def ci lu bon jéggi na dayoo bu ñu saytoo ñun sunu bopp sunu jamono mën nañ wax lu mel noonu te yàlla mi nga xam ne mi ngi ñuy saytu mi ngi wax lu mel noonu li ñuy def jéggi na dayoo kon mbokk auditeurs yi bu ñu jàpp ne loolu yàlla sunu borom waxoon ci jamonoy nooyin loolu nekkul sunuy jamono dama bëgg rek ku nekk delloo ci sa xel te xool li ñuy dund mooy lan ma jël nag tàmbalee ko ñun sunu dëkk Sénégal balaa may wax kenn nañu saytu sunu bopp ñu xool nañu saytu sunu bopp ku ci nekk na xalaat nañu xool sunu askan nañu wax ak sunu bopp fan lañu teg sunu tànk du li ñuy wax nañu xool jëf yi nañu xool jëf yi ndaxte jëf yee ëpp solo foofu li ñuy wax wax moom ku nekk mën na wax lu rafet ku nekk mën na ko wax lu rafet ku nekk mën na ko wax wante fan ñiy àttee mooy jëf yi jukko yi ni ñuy dundee saa su nekk fan lay foofu la ñuy àttee kon nañu saytu sunu bopp bu ñu saytoo sunu bopp danañ gis ne ca dëgg-dëgg li yàlla waxoon ci jamono yi nooyin mën na ko wax itam ci sunu jamono rax ci dolli ñu ànd ceeg nag naagu naagu ba nga xam ne dem nañu ba yaakaar ne sax ñun ñoo moom sunu ruu naagu ba xam ne dem nañu ba fàtte yàlla naagu ba nga xam ne booleetuñu yàlla sax ci li ñuy def ragalatuñu yàlla ragalatuñu yàlla loo wax tey génn ci ëllëg boo nee nit ñi kat lii la yàlla wax buñ la toppee xool gis ne say jëf dëppoowul ak li ngay jàngal nit ñi li ngay wax ne loolu la yàlla wax dëppoowul waaw noonu la ñuy dundee noonu la ñuy dundee donte sax dañuy wax ne gëm nañu yàlla noonu la ñuy dundee te ku nekk boo xoolee sa bopp rek ca dëgg-dëgg xam ne bu ñu yàlla doon saytu tey ah kon danañu teg fu sori danañu boole ci jamono yi nooyin sang bu tedd bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ne ay taalibeem nguurug yàlla bu ne tàmbalee di ñëw li xewoon ci jamonoy nooyin mooy xewaat ci jamono ci àdduna mu ne leen moom buy buy dellusiwaat ndax day dellusi ci àdduna ñépp gis ko nee na moom bis buy dellusiwaat ci àdduna dana tombeeg jamono yooyu nga xam ne moom la nooyin doon dund ak luut nee na nit ñi danañ dund mel ne ñoom ñoo yore seen bakkan ci seen loxo nee na nit ñi danoon dund mel ne duñu faatu nee na nit ñi danañ dund ba naagu nee na nit ñi dana nekk ci lu leen neex nee na nit ñi danañ di jël soxna di jël seeni doom di ko maye nee na nit ñi dana nekk ci liggéey di ji di góob ñii di xëy ñii di wàcc wante loolu lu muy tekki mooy mbetteel dana leen dab bis bu yàlla di fësal nguuram bis bu sang bu tedd bi di dellusiwaat moom seydina isa almasi bi yeesu christ nee na mbetteel dana leen dab ndaxte mi ngi wax fii ne mbetteel moo daboon ñooñu nga xam ne ñoo bokkoon ci jamonoy nooyin mi ngi ñuy wax ne bis bi nga xam ne mbënd bi yegsi na mooy bis bi nga xam ne nooyin ak njabootam dugg nañ ci gaal gi yàlla ci boppam tëj buntu gaal gi nee na ca la mbënd mi ñëw mu bett leen kon yàlla bis buy indi nguuram di wane boppam sang bu tedd bi seydina isa almasi bi yeesu christ bis buy dellu si day bett doomu aadama yi loo xam ne nag xamuloo kañ lay yegsi kooku danga koy waajal bés bu nekk boo yeewoo waajal ko loo xam ne nag day bette loolu danga koy waajal loo xam ne xamuloo kañ lay ñëw bés bu nekk bés bu nekk dee ko waajal kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñetteelu xaaju waxtaanu tey wi
كل ديارك دي التهليل لك سيد الجليل نترنم بصوت نشيد لك يا ربنا المجيد نترنم بصوت نشيد jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu doon déglu dañuy yemale fii waxtaan wi te ji leen jox dig daje ndaxte danañ yeggali waxtaan bi bu neexee yàlla sunu boroom bu neexee Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ñu gën a joox ci loolu nga xam ne mooy nguurug yàlla gën a joox ci loolu nga xam ne mooy jamonoy nooyin ak jamonoy luut ñuy ñaan yàlla sunu borom yàlla na leen barkeel yàlla nay wàccee ay yiwam ak ay xéewalam ci seen kaw ci darajay sang bu tedd bi di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ma leen di fàttali nag sunu numéro de téléphone bi nga xam ne mën ngeen ñu ci woo muy 77 074 35 35 boo leen bëggee am téere bu sell bi bible bi boo leen ñu woowee wala ngeen ñu yónnee ñu message bu soobee yàlla sunu borom danañ leen tontu te danañ leen jàppale yàlla leen yàlla sunu borom barkeel ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amin
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35 أمي